nag mooy wuyu ji ca kanamu yoon ak lu ci mën a am mooy ne opposition bi démb dañoo mujj rek daal di gedd euh, boobu lépp waxtaan buñ ca weesoo loolu ca centre ville ba nag euh, xët yi ne nag dañ ko bancariser maanaam euh, way takku derrière fa fees dell ñu nemmeeku tamit ay fitne yu daal di jib ci diwaanum Dakar Rufisque jàpp ci banlieue bi ndaw yi génn di rek amal manifester taali pëna ngir rek métitlu li ñu teggi malanu lay bu Ousmane Sonko di ca faal ñu jox ko kàddu moom xam ak projet ngir rek daal di salfaañe ak yëlef képp koo xam ne jàpp na ne ab naataangoom la wala sax ab opposant am la ci langum politique gi Euh, ñu jóge ci Walf Quotidien dem ci Sud Quotidien mi daal di xëy fësal ba tey immunité parlementaire bu Ousmane Sonko mi daal di teggi ni démb assemblée nationale nag teg na acte bu mujj ngir rek Ousmane Sonko wuy ji ci kanamu yoon enquête yi ni kaay moom itamit noonu la fësal nataalu Ousmane Sonko bu ñu lëndëmal ba mu lëndëm kiris def ajjuma euh, boo xamante ne ni lëndëm na ci kanamu Pastef gannaaw ba ñu teggi malaanu kirlaay bu Ousmane Sonko euh, député gi leen nag jamono ji la nekkoon ci digganteem ak yoon teggi nañu ko ni ki démb ay explication wu euh, maître Malick Sall plaidoirie bu Aïda Mbodj fës ci xët bile diggante page 3 euh, 4 jàpp 5 lu toll ci fukk ak juróom-ñaari jigéen yu bokkee ci Pastef jot na leen a teg loxo euh, juróom ay étudiants lañu ñoom ñëpp bokkee ci Pastef ni ki démb bi ñu génnee di amal ñaxtu lañ leen daal di rek jàpp las yéenikaay moom itamit daal di xëy fësal nataalu Ousmane Sonko jàpp ne yëkkati nañu malaanu kirlaayu député Guilé Mène jamono ji nag coow juddu na sa waaye kii di Ousmane ay naataango moom député opposition bi jàppale nañu ko te ku ci ne tamit taxaw nga euh, taxawaayu rek euh, jàppale kii lii di Sonko ngir rek mu bañ a benn yoon ci xeex bi nga xam ne jàpp nañ ne dañu ko bëgg rek tegal ab ndigg sërëx le quotidien yéeni kaay moom fëlëf ba tey ci mbiru Sweet Beauté muy xam ne ne ñeenti étape jamono ji moo daal di lànk mbir mi ci diggante Sonko bi mu jàpp ne sax Sonko entre quatre mai noonu la ko bindee ni jamono ji section de recherche mu ngi taxaw assemblée nationale moom def na li noppi juge Guy Marius Sagna yi tamit yëkkati nañu ko amal ko ab euh, kaddu ci xët gilee moom Guy Marius Sagna jamono ji leer na ne dem na kaso ki des kay mooy Clédor Sène ak euh, Assane Diouf mi nga xam ne jamono ji ñu ngi ci bande touche bi di xaarandigum fan la wane mujj ki gëtam Vox Populi moom tamit xëy fësal mbiru po Ousmane Sonko jàpp ne majorité bi nas nañu nocci ba daal di teggi malanu kolay Ousmane Sonko jamono ji juge bi moom moo ci des ndax fan lay mujj ak kile di Sonko débat bu tar démb bu tàng jër moo amoon ci hémicycle ba ci penc ndawi réew mi waaye ñi xam ne ñu opposition bi mer nañu teew takku der taskatu xibaar yi tamit euh, mer nañu gannaaw bañ leen ci buntu assemblée nationale ba weer leen fa ñoom itamit méttu nañu ko bu baax a baax lu ci juróom-ñeenti fukk ci ay député ñoom ñoo voté ngir rek ñu daal teggi malaanu kirlay bu Ousmane Sonko lii quotidien moom itamit ci mbir ma la xëyee ne jamono ji lenn moo ca des mooy fekk Ousmane Sonko fa mu toog ne ko nipp yóbbu ko daal di koy jébbal juge bi ak lu ci mën a am ñu ngi xaarandi mbir mi fan lay mujjee critique yéen kaay moom amal critique bu yaatu jamale ko ci audition bi nga xamante ni def nañu ko ci kanamu juge huitième cabinet aji Sarr mel ni kuy gën a takkal Ousmane Sonko ndax toftal na leneen ci enquête bi ca la ñu ko doon xaare Ousmane sonk kon nag jamono ji ñu ngi koy di tamit waaye critique ne Ousmane Sonko dafa mel ni dañuy mër ak lu ci mën a am indi nañ ci ay leeral ci biir xët yi l'observateur yéenekaay yi moom itamit daal di xëy fësal euh, emprisonnement bu euh, Guy Marius Sagna ni dafa am lees waxul gën ca mën a nemmeeku ay arrestation yoo xamante ni gàll nañ ko ci ndoddam te jamono ci lañ ca toftal mooy détention criminelle te loole buñ ko gàllee ci ndoddi activiste bi rek mën na indi ab euh, kaso goo xamante ni mën na yàgg lool ci ndoddi Guy Marius Sagna loolee sax la libération daal di xëy libération ni mbiru fa Guy Marius Sagna euh, Amadou Clédor seen ba ci Assane Diouf seen i mbir mu ngi gën a jéggi dayo bu nekkante ni dossier bi dañu ko criminaliser dina doon ab situation boo xamante ni dina métti loolu ci ñoom teewul àdduna ñu ba tey ci mbiru pa Ousmane Sonko daanaka xët yëpp ñoo ko xëy bëccëgub tey source a moom itamit la mu des mooy ni leeral gannaaw bi ñu joxee kàddu ab pénaliste muy xamle ne euh, moom Iba Barry Camara nii su fekkente dañ leen a jàpp ci mbirub rébellion la ñu jàpp ne rek ay euh, atu kaso mu leen koo gàll seenum ndoddu ñaar jàpp juróomi atu kaso su fekkente ne nag ak faatu daf ci am nit koo xam ne ñàkk na ci bakkenam mën na ñoo dem ba fukki atu kaso yoo xam ne mën nañ koo tëdd pénaliste bi daal di ci indi ay leeral ci biir xët ci leen di source a le soleil yéenekaay yi moom génn feneen ci wàllub euh, mbas mi la euh, wàllum paj gi jamono ji nag campagne vaccination di ñàkk gi door nañu ko lu toll ci euh, fukki junni ci ay doomi aadama jot na leen ñakk daanaka ña ca sàkku bindu ci mbir mi tamit lim bi takku na loolu cardinal Théodore Adrien Sarr xalif bu Medina Baye ak yenn ci ay ñoñam jot na leen a vacciné na leen ni ki démb vaccination yi nag di daal wéy jamono ji nag yi nga xam ne ñoom ñoo di kilifa diine yi ak kilifay langue politique yi di sàkku ci état eh, eh, askanub Sénégal ñu dem ñàkku ji bu ñu ko itewoo 24 heures yéen kaay moom dafa mel ni dafa indi ab leeral leeral goo xam ne révélation mën nañ ko jàngat ndax nag 200000 doses yi nga xam ne duggoon nañ ko ci réew Sénégal te jëlee ko ci eh, Sinopharm état bu Sénégal dafa àdduna dañ ciy dugal koppar gu weesu 2 milliards. Euh, euh, ci sunuy koppar ñoom nag jàpp nañu ni euh, ëpp na ko lool terewul nag ñoom dañoo daal di jox kàddu ñoom Bloomberg Bloomberg gi nag di ab goo xamante ni dafa xëy fësal ni état bu Sénégal dañu ko rek daal di may yooyu lépp ñàkk ay don la ak lu ci mën a am Cheikh Omar Sy jël na ci ak kàddu ne lii bu fekkente ne lu am la ab information la boo xamante ni ñu ngi ko jëlee ci Bloomberg Bloomberg nga xamante ni nag ñoom dañoo àdduna rek état bu Sénégal dafa am don boo jëlee nañ ko ci Chine donc boo xamante nii ay vaccin la yoo xam ne dañu ko may état bu Sénégal jamono ji nag état bu Sénégal moom mbiru achat lay wax ni dafa mel dañu ko euh, jënd mu mel ne nag euh, am na loo xam ne nii lees waxul am na ca euh, ci loo xamante ni jógee na ca diwaanub Chine jaar ca réew Sénégal Sierra woon Tunisie ba ca Algérie Euh, Dakar Times moom xëy enquête bu euh, bu ñu fësal ci rek mbirub euh, patrimoine foncier lébu ak mbirub suuf yi nga xam ne ni nan lañ koy octroyé ci réew Sénégal rawatina nag gox yi nga xamante ni lébu yi ñoom ñoo ko rek teg tànk loolu jot nañ caa def enquete bu yaatu direct news moom def itamit ab jéego indi ko ci projet bu cent mille logements banque yi jamono ji sóob nañ ci loxo waaye njiitu réew Macky wax na ci ba sonn ngir rek banque yi amal ci jéego ngir rek mën a jàpp jàppale euh, boobu lépp euh, logement mu daal di mucc ayib tàggat yaram li ci gënul fës jot nañ koo jukki ci stade yéenekaay la la euh, Djibril na daal di fësal moo xëy ba tamit ci xët yi di Premier League ak choc bi nga xam ne mën nañ ko xaar ci ngoon sunu lamb moom daal di koy euh, biral tey kile di Balla Gaye 2 mi nga xamante ne nii mu ngi ci préparation jamono ji sax ñu ngi koy xaar ci diwaanu Paris euh, ci euh, weeru juin la fas yéene jàkkaarloo ak Bombardier dina waaj nag li nga xam ne moom moo di combat mbokk yi li la woon. ci xibaaru suba si ñu amoon yéene yeggee leen ko yaakaar jab yegg seen ci canam gi gën di sant gërëm bu baax a baax ñu jàppoon ci toggam xibaar mu daal di yemb moom Safet Cissé moo nekkoon ci euh, jàppandal gi réalisation bi euh, technique bi Jibril Ndiir la woon soxna si jaxate moo nekkoon ci kàddu gi mbokk yi ñu ngi leen di ñaanal bëccëgub jàmm sutura xéewal naataange sur la voie des savoirs ngeen doog jàmm jërë ngeen jëf